Hilangari Baidam sama paat yàlla fi yàgg di wér ba lañ bëgg a liggéeyal lépp ñu liggéey ko bëgg ko yi du sama rek koy ngi koy jéggul mi nga jëwriñ may wax ci kanamam si mu doon mi laay wax ne moom mooy suñu jëwriñ kon kàddu yi nga xam ne maa ngi koy dugg di wax ci kanamam maa ngi ko koy jégalu kon ñoo ngi nuyu bokk taal bi yëpp di leen siyaare di wax ne dong yi nañ góor góorlu ndax ab sëriñ buñ koy wax dong yaa tax ab dongaat buñ koy wax sëñ baa tax ñun nag am nañu sëriñ te ko am wéeruwaay day doo daanu kon nañ jéem a góorgóorlu ba sëñ kilifa yi liñ bëgg ci ñun ñu taxawee ko noonu. mbir mi bi mu jubee sëñ bi joxoon ndigalal dongo yi nañ soñu dongo yi soñu nañ dongo yi wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na xaw ma nag ñun sëriñ sant nañ waaye ñun dongo jawriñ yi nga xam ne nañ ci kanam dongo yi sant nañ bu baax a baax a baax a baax suñu xool sedd na guy li xam ne suñ bëggoon na ko defal na nañ ko ñu wuy si ko nekk ci liggéey bi taxaw ko nañ ko war taxawee loolu def nañ ko ba nañ ko bëggee defal nañ ko noonu dëkk boo xam ne rek fédération bi àgg na fa lañ leen sasoon ci aw sas ba xam nañ ko ba dolli ko ndax kenn ku ne nga wax ne ma si ñu ci daa fédération bi danaa ko dolli kon nañ ko waxe woon defe nañ ko noonu ba defe ko raw kon ñoo ngi ñaan sëñ bi mu jàppal leen ci xéewal ak wërsëg wu yaatu lool ak wér ba ni ngeen bëgg ñu liggéey leen ko ñu mën leen koo liggéeyal ab dong nag bu fekkee dafa dem ba am lum lum jaaxle te toog ci ay kilifaam war na koo jàmbat ndax jëre suñu docteur li ñu bëgg daal mooy kàttan guñ liggéeyee suñ diwaan te man ngeen ko na ngeen jàppale dongo yi ah ma bëgg a jox surtout tànk yi nga xam ne nag dañoo nekk ci kër gi war a liggéey liggéeyu kër gi liggéey bi dafa mel ni ko tàmbalee rek gis si gone day jafe te gone moo mën am doole mën a liggéey ma bëgg nag bu xamee liggéey bi ñëwati na na yi teel a ñëw kër gi liggéey liggéey bi ndax boo nekkee ay mag mag moom mën naa am xelam rafet di ko xelal waaye liggéey gone koy def. da mel nag liggéey looy liggéey moom des na mën ngeen joxe addi lool waaye woo ngeen wuy ci dal ni ko bëggee dal desna ma bëgg nak ñu góorgóorlu ndax ba ñu toll nii kat képp ko sa sëriñ di woote mu mel nii war nga xam ne bu déwénee bu mu mbubbum liir la mu bu moom at mu yor nga xotti mbubb rek ñaara ko way bu liir moom at mu yor du mat ko jël borom borom bu mu kon nga xam ni lii bu déwénee bu ñu fi jël gam da dana ëpp li kon kenn ko ne na nga waaje won boo del si bu déwénee nanga nga jéem a fukk am ñoo ngi sant nag dongo yëpp ci turu sëñ Moustapha la Ndiagne ah, mu mag ak Moustapha la Ndiagne ci kanam sëñ jawrin sëñ Modou Habib mu bëgg nag lépp loo xam ne jógati na bala ñu fay nekk soññee nañ ko def ndax léegi kenn ku ne xam na la war am na yoon woo xam ne nañ ko fédération bi sas ko fédération bi kenn ku ne war koo doxee kon boo négee ba déwénee ñu lay soññu day mel ni da ngay bëgg ñu manqué Pastef kon wan nañ yoon ñu war a jaar daal yoon wi moom bu ko kenn xaarati kenn nañ fexe balaa bis bee ñëw dañ la ko rafetal ñu def ko ba rafet kon sëñ bi ñoo ngi leen di ñaanal ci barke borom diwaan si la ngaari baay daam